ñaari waxtu jot na sëkk ci Walf TV leeru jamono ginnaaw bi ñu leen nuyoo ba noppi tey ci àjjuma ji li gën a fees ci bopp xibaar yi askan wa dëkkee fii ci Ndakaaru te zone captage am nañu jafe-jafe ndoxu foos yaa ngay wàlle xëñ xunn jural leen ay gàllankoor ci seen wàllu wér-gu-yaram ay weere ngi nii ONAS teg fa pompe te mënu ca dara ñu bëgg na nguur gi dugal ci loxoom ndax dafa mel ni li ONAS amatu ci saafara seeni kàddu dañ ko teewlu lu jëm nag ci gendarme yi kenn wegatu leen ndax nag manifesté yi ñu gis fan yi jàmmarloo bu tar askan wi di ko def bu buñ leen ne toog leen ñu ni ñu di xeexoog ñoom guddeeg bëccëg nekkatul woon li nga xam ne mooy wegeel am na ci seen biir te fuñ leen mësaan tudd ñu daal di daw di xalaatu Cheikhuna Keita mi ne nag taxawaay bi saa su ñuy génn ci mbedd bi moo waral askan bi faaleetuñu leen dafa jokko ak Pierre Edouard Faye ñu wax ci wàllu euh, couvre-feu ak jafe yi nga xam ni askan ñu ko ciy jànkonteel ñoom takk der yi Seydi Gassama jiite Amnesty bu Sénégal di leen ñaan ñu gën a doxal yoon te bañ seen ak seen yelleef naam sax yoon moom dañu ko war a jëfe cim lem réew joxe na ci ay xalaatam dinañ ci tekk bitim réew ñaareelu pàcc bi yéene lay doon ci kanam tuuti ñu faram fàcce xibaar yi dal leen ak jàmm xibaar yi ñu dooree ko ci zone de captage nekkee fii ci ndakaaru askan wu fa yeewu am jafe-jafe ndax ndox yee génne e, ca douche ya moo wàlleeku ci mbedd yi fees ne dell kër yi ñu cey xuus saasu ne ànd ak xet gu bon mënuñu ko noyyi mën naa jur ay jafe-jafe ci seen wàllu wér-gu-yaram ñu kalaamee waa ONAS mi ko gàccoo ñëw na ñu benn moto pomp la ñu fa teg léeg-léeg sax day taxaw ñu jàpp ne kon mbir mi jéggi na ko loxoom ak mën-mënam kon nguur gi na ci dugal loxom nu mu gën a gaawee e, Serigne Gueye moo fa dem ca zone de captage fii ndoxu kër yi di jaar moo doxatul na mu waroon a doxe weer a ngi looluy jur ndox mu xaye di muy génne ca égout ya fees dell ci mbedd yi ndox mi ndoxu ONAS la ci égout bii lay génne égout bi ñu branché nii ci lay génne woo nañ waa ONAS woo nañ même directeur général directeur technique yi ñoom ñëpp woo nañ leen ñi ngi def effort bu ñu mën mën na weer léegi mën na weer ñu sonn nañu weeru yàllaa ngi nii muy xelli kër yi benn kër garage yëpp a fermé kër yi ñun yëkkati nañ kër goo fi gisoon mu nekk ci aw léegi mu ngi ci suuf dañu sëkk sëkk sëkk ba sonn. ñu dëkk ci bile quartier ne mu ngi leen di jural ay jàngoro yu wàllu noy yi. feebar laa wax surtout ñun mi nga xam ne ay mag li nga xam ne suñ suñu suñu dënnu yu baaxul ah masque yi guddeeg bëccëg yi masque yi boo nekkee sa kër da nga takk masque sinon xot xet gi dafay bëgg a rey xale yu tuuti yi dañuy feebar dañu sonn sonn nañu trop trop trop suñu doom yi ñëpp a feebar ñun mag ñi nga xam ne wéruñu sax ñun ñii mag sax ñun dañu wéradi ñu ragalatuñu feebar bi ndox mi la ñu ragal ndax ndox mi sonnal nañu damm nañu rey nañu. ci pexe yi moto pompe bi office national de la l'assainissement du Sénégal indi fa ay bësëng yi taxul sax mu mën faa jëlee ndox mu bon mii li ñuy maqee nii par tuuti muy dem bu ñu maqee tuuti arrêté fi feesaat loolu réglé yëpp yi. kii li koy régler muy seet ñoom waa ONAS seet fan la affaire bi buusee ñu dindi ko ndox mi dem nettoyer canalisation yi. ñu dëkkee ci bile quartier di woo ONAS ngir saafara su sax dàkk. nañ ñu dindi lii mu jóge fi ñun daal na fi ndox mi jóge rek. waaw assainissement bu bu assainissement gaawul it lii moom xaarul assainissement na fi jóg rek ndox mi daal sonnal nañu gën gaa gàtt ndox mi daal nañ ci dimbali. guddi bëccëg kenn nokkeetul amul benn oto bu duggati fii zone de captage ak ndoxu foos ya fay wàlleeku ñi tamit askan lañu ñu nga yëkkati seen i tawat yóbbante ko Alassane Ba di kër Ali Samba nekkee ci commune Porokhane booba gox amul courant amul yoon yu ñu jaar poste de santé ba amul sage-femme kenn ka fa nekkoon ñoo daan dajale seen dërëm ak seen tànk di ko fay bu ko fa nguur ga yóbboo ba tey leen na kenn bu ñuy mucc dañuy lott lool fu ne la ñuy daw awal yi ñu teewlu reportage bi askan wa yeewoo ci kër Ali Samba di ab dëkk bu bokk ci commune bu Poroxaan di jànkuwanteek ay jafe-jafe yu métti bokk na ci li leen sonal mooy yoon wu baax. problème mu yoon bi yoon bi mel na ci ñun loo xam ne moo waral nga ñëw fi pour ñu tawatal la ko xam naa sama benn bàjjen fee ne yoon wee ko laagaloo. am na koo xam ne fi amoon na aw fasam ci yoon la fas yu surax ba dee ñu yoon yi moo ñu gën a yitteel. yitte bu ma sëkk mooy yoon bi. Euh, problème yu yoon moom lañ am distance bi diggante fii ak Proxaan 5 kilomètres la gis nga yoon bi nu mu yàq naqaree bi ngay ñëw munoo fexe ba ñëw yoon bi dafa naqadi. amuñu yoon bu baax. leneen li nga xamante ni ñu ngi koy sàkku moom moo di courant ndax ci lëndëm ak ñàkk kaaraange la ñuy dund. courant bi moom ñëwoon nañ bañ am si yaakaar lool digg nañu ko bu baax soo gisee ñu wala nga ñëw fii dañoo bëgg wax ji àgg ca kaw ñëw nañ ne dañuy defal courant te boobu ba ñu ngi taxaw di xaar amaguñ courant ñu ngi daal ah wax ji bu àggee ci kaw ki nga xam ne moo njiitu mu jàppale ci courant dëkk bi aajowoon nañ courant lool aajowoon nañ courant lool soo gisee ñuy taal ay lampe solaire ñun ñoo ci réew mi lañ bokk war nañoo mën a am ci li waa réew mi am ñu ngi koy diis ki nga xam ne mooy njiitu réew mi. ñoom ñi nga xamante ni tabaxal nañ leen ab poste de santé bu bees waaye sage-femme ba fa nekkoon te ñu doon génne seen gafa di ko fay état da ko fa jëlee te indiwu fa keneen bokk ci lu ñuy naqarlu. ñoo ko doon fayal bopp ko dugalee état dañ ko jël yóbbu ko. fi ne nii ñu ngi taxaw Macky Sall nañu dimbale ñu am sage-femme mu fayal ñu suñu infirmier bi loolu lañ soxla ci dëkk bi yoon courant su moyee alhamdulilah rabbi alamina hôpital baa ngi nii ñu nii si gannaaw dëkk bi amul euh, sage-femme sage-femme bi fi nekkoon ñun association bi ànd suqali Kër Samba ñoo doon koy fay. weer wi dee ñoo koy fay fukki junne juróom 4 mois lañ ko fay mu jeex li ci des pourcentage bi mu waroon góorgóorlu di ko fay. sage-femme boobu fi mu doon jëlee nañ ko fi yóbbu nañ ko ba léegi amaguñ sas femme ambulance nekk na suñ problème digoon nañu ko ba léegi nag gisaguñ ko. ñu ngi école bi nga xamante ne lu bëri ci ay tuut tànk yi dëkk ca gox ba fa la ñuy jàngee amul miiru collecteur tax ndongo ya fay jàngee di ko xëccoog uh, mala yi. Euh, école bi tamit am nañ problème am parce que collecteur école bi baaxul miir wuñ ko te soxla nañ ko ñu miiree suñ école bi. booba léegi li fi jàng ëpp na ñaar téeméeri élèves waaye benn collecteur rek xaj yeeg mbaam yeeg fas nag yeeg yëpp fa la ñuy circuler ak suñu gone yi. loolu dara wóoru ci. ñoom ñi nag dëkk kër Ali Samba ne ñu ngi sàkku ci nguur gi ñu ñëw jàppandi leen ci li nga xamante ni moo di seeni i jafe-jafe ndax yàgg nañ leen dikk ñuy dundee yaakaar fu mu toll nii ñu jëf ñu gis lañ ci xaar kër Ali Samba Alhassane Ba gisee Gissé Walfadjri bu ñu jógee commune Porokhane ndar la ñuy wutali taxaw gét ndar foofa mool yoo xam ni Sénégal ca atum 2015 la ñu ko téye woon ca Mauritanie naam sax ñoo jéggi woon fa ñu leen rëddal waaye nag njëkk la ñu ñaan ni ay billions yu bari la mu nga fay yàqu nguur gi na ci jàpp ñu mën a jotaat Sénégal weer seenub liggéey Abdoulaye Ndiaye kenn la ca ñoom Gabriel Barbier ma leen fekk woon la dénk ay. mooy depuis 2015 bi fi ay taar jógee matali naari Arizona plus de centaine de gaal yoo xam ne ñu ngi ci diggante Ndiago ba Nouadhibou. ba fi ay daat jógee ba léegi benn jéego amu ci pour ñu naanal mool yooyu ñu delloo leen seen matériel ku man bàyyi huit cent cinquante prisonniers yoo xam dañu tooñoon ci kaso bi war nga mën ñaanal sa njaboot ñoo xam ne seen njaboot seen matériel dañ ko arraisonné nga ñaanal leen ñu delloo leen ka ndax metti lu mat cinq ngi nii yoo xam ne ñu ngi arraisonné ay matériel te delloowuñ ci dara gannaaw yàlla moom lañ ci yaakaar ak président Mauritanie ñoom ñaar comme déggoo yàlla boole na leen ñu ngi ñaan mu ñaan ko moom mu delloo matériel i borom ñu delloo

matériel yooyu ñu mën ko delloo seen i borom ndax ñoom rek lañ gannaaw yàlla matériel bi lañ yaakaar te yaakaar ci kenn ku dul moom ak président Mbodj gendarme yi dañ leen a wegatul kenn ku ne yaa am sa tontu bopp muy xalaatu kii di na Keita nekkoon ab commissaire liggéey ba retraité ni jàmmarloo yi nga xam ni ñu ngi koy gis ci ñaari fan yi tax na laaj yu bari amagul tontu ndax nag génn gu bari day tax ba kenn dootu la wekk ñu teewlu ay kàddoom Pierre Edouard Faye la jokkoon loolu mu ngi nekk ci jamono ji ak ci lu bari lu fi soppeeku ci espace public bi c'est-à-dire ci penc mi lu bari lu fi soppeeku ci doxalinu nit ñi ak waxin bi ak défini bi lu bari lu fi soppeeku ci fi nit ñi se si woon seen bopp ak ni ñu gise woon yoon lu bari la lu fi soppeeku tamit ak ci médias yi ni ñu gën a bari actuellement ak nit ñi message yi ñuy passé pour wax population yi seen droit te fàtte souvent di leen wax seen seen devoir ak désordre bi am ci espace politique bi ba ñu bari dañuy am tendance pour des raisons pour une autre ni am ngeen droit def lii am ngeen droit def lii kenn waru leen def lii kenn waru leen def lële bo lool day créer benn état d'esprit bi nga xam ni moom mooy indi lii. yoon moom faaw ñu koy saytu xanaa kay xool la ca rafet ñu jëfee ko te bañ di gundu askan bi mbaa ñu leen di xañ seen ak ak seen yelleef di gis-gisu Seydi Gassama moo jiite Amnesty banqaas bi nekkee fii ci Sénégal moom it dénk na ay kàddu Pierre Edouard Faye ci wàllu couvre bi la ko doon laaj. vraiment ñu ngi ñaawlu attitude bi jeunes yi parce que vraiment jeunes yi war a xam ne couvre-feu bi politique ko li ko lal mooy mbas mi nekk ci biir réew mi te bés bu nekk ñu ngi ay bakkanu nit ci biir réew mi kon urgence sanitaire moom moo laal couvre-feu bi ñëpp war nañ góorgóorlu ñu jéem ko respecté pour aar suñu bopp aar suñu njaboot aar gox bi nga xam bi nga xam ne tey ci lañ ci lañu dëkk kon loolu lañ lañ ko respecté c'est pas difficile couvre-feu bi douze jours la war a fukki a

un appel aux communautés képp koo xam ne yaa ngi ci biir gox yi ci quartier yi ngay artiste ngay ko ngay imam chef de quartier yi mouvement nawetaan leader nawetaan ñu ngi waxtaan ak xale yi sensibiliser leen pour que xale yi mun a respecter le couvre-feu xale yi mun a adopter tamit les mesures barrières maanaam di sot seen masque di raxas seen loxo pour que évidemment ñu mun a am ay ndam ci xeex bi nga xam ne ñu ko xeex mbas mi depuis maintenant presque un an ab économiste la xam-xam ci jëm ci wàllu koom may sa jàpp dina couvre-feu bi ak état d'urgence bi ñorul xaayul li nguur gi waroon a def soññu askan wi bu baax ngir ñuy moytu feebar bi lépp luñ leen aaye ñu bokk fa lañ leen sant ñu ne ci waaye di te lu jëm ci wàllu mbumbaay yi xew yi kéet yeeg ngénte ñu dakkal ko lu loolu koom-koom gi nasax na te day gën a yokk may sa baabu ba teyaat ak Pierre Edouard damaa jàpp ne eh, sax dañu xaw a jum parce que couvre-feu bi fekkente ne da nga ne woon baar yi tëj leen nga restaurant yi tëj tëj leen guddi su tëjee kenn amul foo jëm te donc le problème était réglé mais bu fekkente ne dañ da nga wax loolu ba pare ne teg ci couvre léegi da ngay jéggi dem ci quartier yi ñu doon jaay ceeb doon jaay ay reer ak yooyu yëpp eh, waa école yi plus soir yi ñi dañu dañu defaraat seen emploi temps yi di perte ay heures yu bari bëri na ñoo xam ne ni ci port feneen ak feneen ndax liggéey ñu yàqu te wax dëgg yàlla virus bi du ne du ne doona guddi la jot bëccëg bi sooy xool très rapide niñ demee Dakar dem depuis cinq fan yi jël nit ay mesures bi ñu gis même su nit di ñibbi ak coono bi ñu leen teg wax dëgg yàlla tëjoon baar yi daal ak restaurant yi tooyoon nga fépp a gënoon nga def kuur su boo xam ne dana gaañ guddi di gaañ bëccëg xam nga soo tëjee baar tëj restaurant yaa ngi daane koom bi ñu ne culture maanaam lépp luy musique bi coy xeeti théâtre yuy arrêté leen ko yooyu tamit xam nga ñu fa soo jéggee ñëw da nga ne ñun suñu école trente minutes la ñuy perte par jour perte du jeexi jaaxa ay perte la nga gis jaaykatu cere yeeg jaaykatu perte la ñu ci bëri cette activité su tëjuwul complètement def wàññi may sa bopp. li nga wax li koy firndeel mooy jaaykatu dibi yi ñoom loru nañu bu yàgg ba tey daanaka at ñu woon lii gën cee dàbbali ndax juróom-ñeenti waxtu day teel lool dañuy lakk dibi sax di toog di xaar client bu ñu ko gisul dañu koy sarax taalibe yi muy post yu bënnati kii di aji ndey kuna moo leen seeti woon jéey ñu ànd ci reportage bi. dibi askanu Dakar sopp nañ ko lool waaye bi fi mbas mi duggee ba léegi liggéeykat yi ci dibitër yi seeni koom-koom dafay tagatémbe Cheikh Fall jaaykat ci dibitër yi Baye Mbarik Fall di ko dëggal. ndox mi cher na courant bi cher na liggéey bi doxul fi mu toll nii jaay ñu pour am bénéfice dañuy jaay pour mu mun ci dund rek yor famille bi mais du question jaay pour am bénéfice ndax dëkk fi mu nekk actuellement tout est cher taxi cher na ndox cher na courant cher na bi cher na fi mu nekk soox rek rek rek rek bañ a fay moo tax ñu mais ubbeetuñ pour dara ba corona bi ñëwee ba léegi dara dara moytul am ñëw daal di ñuy doggali vraiment vraiment vraiment xëy na nag lu yàlla dogal la moo tax mu ñëw suñu waaye ku ci nguur gi dimbaloo bu ñu bàyyi ñu tam ñuy fortaatu di tëj sax ba au moins 11 heures vingt minutes yaa ngi ni commencé ñibbi ndax fi mu nekk dañuy changer méthode de liggéey dañuy lakk teg ci taal bi yenn saa yi clients yi ñoo jënd ko ndax mooy système bi am da ngay lakk teg bu client lakk tee ñoo nga jox ko bu loolu la koy lakk ko après la koy jël sal ko taal bi ñu lekk ko dogal yu yees yi njiitu réew mi jël naqari loolu ñoom lakk lakkatu dibi yi ñuy xamal ni seeni liggéey guddi gi lay gën a dox. da nga doon jaay presque cinquante kilos mais xam nga ak te temps bu gàtt bi ñu am léegi xam nga léegi moo tax ñu bari affaire daal daanaka muy noonu daal escanté nañu rek. léegi mënul dox te affaire bi metti na trop si nit ñi ñun yërëm nañ suñu bopp waaye yërëm nañu doomu aadama yi ndax ku doon wàcc vingt heures léegi da ngay obligé wàcc dix neuf heures ndax lan. nguur gi moo génne lii te nguur gi lu mu lu mu dogal rek loolu la nit ñi war a dogal ndax mooy suñu njiit amuñu droit wax ko lu ko naqari ndax tànk que mooy suñu kilifa lu mu wax loolu la ñuy def wante metti na trop. état d'urgence bi ànd ak couvre-feu bi ngir galgal jàngoro ji moo ngi sooxal liggéeyu ñi di yëngu ci wàllum dibitër yi. noonu la ñuy jàllee ci xibaar bitim réew Moussa Sène lañ ci àndal. xibaaru biti réew dañ koy door ca Côte d'Ivoire ginnaaw bu ñu bi opposition bi booy boycotté woon lii di élection présidentielle yi ñu amaloon ñoom nag daal dinañuy waxtaan seen biir def benn dànk rek ngir jàmmarloo ak ñii di waa pouvoir bi dem ci élection législative yi nga xamante ni mi ngi war a am ci weeru ba mars yemook juróom-benn fànn ki xamle loolu nak mooy porte parole bi nga xamante ni moo dajale mbootaay yi pare ci coalition kujje gi ci ab communiqué ñu bëri fare ci kujje gi di ko ñaawlu ndax dañoo bañoon élection yi nga xamante ni moo amoon ca février 2020 ñoom nag ñu mën a soppi xalaat ngir amal élection yi weeru mars ca Uganda ginnaaw bu ñuy waajal élection yi nga xamante ni le 14 février lañ ko war a amal candidat bi fare ci kujje gi di Bobi Wine ci ab conférence de presse bi mu doon amal ni ki démb la xam leen ni avocat yi jébbal nañu cour pénale internationale ab plainte ki mu plainte nag mooy président Yoweri Museveni di président bu Uganda ak ñeneen ñoo xamante ni ñoo ànd ak moom cabinet bi nag di xam leen ni rek li tax mu jébbal CPI plainte boobu du leen lu dul moom la ñu nemmeeku di ay violation des droits humains ak crime contre l'humanité yi nga xamante ni nemmeeku nañ ko foofu ca Ouganda avocat bi nag jébbal dossier bi ni rek ci kaw Bobi Wine dañ ko ni rek ay violence dañ ko amaloon ci seen client bi di Bobi Wine ba tax Bobi Wine nag di woo Cour pénale internationale mu def liggéeyam te bañ a far jeexale xibaaru biti réew ca Brésil mi nga xamante ni nag moom niki arxemes bi toll na lim bi faatu mi ngi toll rek ci lu deux cent mille doomu aadama yoo xamante ni ñàkk nañ ci seen bakkan ci li nga xamante ni moo di Covid 19 bi lëmbe réew mi waane nag loolu taxul kii di Bolsonaro am soppin ndax moom lu mu wax rek mooy mënuñoo dëkk di confiné wu ci jamono ji nga xamante ni suñu économie mi ngi nërmeelu ak nit ñi tam war a dox seen ittee mu ne rek lii di Covid 19 bi vieille la ba tax moom bàyyiwu ko. xel waane nag mi ngi méttut dee yi nga xamante ni moom lañu nemmeeku foofu ca Brésil lim boobu sax mooy lim bu ëpp ci kanamu États-Unis noonee la ñuy jàllee ci benn ponk bi des ci xibaar yi muy yéene kaay yi Omar bun lañ ci àndal mbokk yi dañuy laaj tey jii nguurug Sénégal kan la ñu yàpp ak ñan la ñu yàpp bay digle li di cangaay te duñu sangu Walf jeene Mansour Faye ak Abdoulaye Diouf Sarr ñoom ñiy digal askan wi ne nañ respecté mesure barrières yi teg ci nag di sàkku ci nit ñi ñuy sorante teg di dendante démb wane nañ ni loolu ñu wax gëmuñu ci dara ginnaaw ba président Macky Sall waxee couvre-feu ak état d'urgence ñu lëjal ci lool askan wi démb ñaari ministre yooyu la weddi nañ lool ci kanamu taskatu xabaar yi bu gouvernement bi di daje ak journaliste yi lu toll ci téeméeri journaliste dañtali ko ak ministre yooyu la te dañ ne dajaloo la ñuy bañ ñoom ña ko doon wax ñu ngi dajaloo ak journaliste yi te nag loolu mënoon na ñàkk yéenekaay bi ne nan ko waroon defee mooy ak jamono yi ni technologie bi ak xarala yi nekkee ci àddina bi mënoon na waxtaan ak taskatu xabaar yi te duñu daje jaarale ko ci internet bi waaye loolu lépp defuñu ko li ñu def mooy teye askan wi noyyi Walf Quotidien ne moo tax askan wi ne mbéjum kanam borom moom moo koy fajal boppam ci yéenekaay front de terre bi banlieue bi ak waa Médina ba ci ñaari tali ñoom ñëpp génnoon fipp wanek seen bopp ñàkk ànd ci li leen gur gi ne da leen di tëj li ko dóore juróom-ñeenti waxtu ci guddi gi jàpp 5 heures du matin waaye loolu Antoine Diome di ministre de l'intérieur démb da ko ñàkkal fayda gis ni naam am na ñu yëngu waaye ñi ëpp ci askan wi fatu woon nan moo tax na ñu gën a teengal mbir mi jëm ci wàllu dem ak dikk bi waaye te jëm ci wàllu daje yi ba ci marché luuma yi léegi loolu mënta am dem ak dikk bi nu ci oto yi doon dànkalikoo loolu day dakk jeex tàkk mbooleem fu ndaje doon am di ngénte ba ci ay ceet ak ñoomin seen yooyu yëpp ay nan ko loolu nag mën a nërmeel koom gi moo tax bi jox kàddu gi yi nee nañ koom gi dina fi nërmeeloo a faju ci ak wér waaye poos yi dina fëq jeex tàkk koom gi daanu daanu googu mi daanu nag bu dee fukki fan ak ñaar rek yi couvre-feu ak état d'urgence mën na sax bañ a doy waaye bu ko ëppee rek caaf dina xam tege dega yàqu moo tax nguurug Sénégal jël ay dogal ne dañuy gën a tengal mbir mi ci réew mi quotidien Antoine Félix Diome ci yéenekaay bi di Vox Pop na Sénégal yi nañu mastawu te loolu lépp nag dañ koy def bàyyi force ndaxte ku ko deful mën nañu rëq seen digg te mbir mi nag nañ ko ci weer ba ci mbedd mi sax ñi tamaamalu di dem dëkk nanu takk seen masque ngénte mariage ba ci dëj ak ndaje yi ñeel wàllu ko diine 17 janvier ci di wéy ba ci yéenikaay bi di Sud Quotidien ñeel état d'urgence bi ak mbir mi daa gën a teng moo tax nguur gi booleetuñ ci benn ree ak benn caaxaan nan wàccoog lu ñu diggee ci takk masque ak maytu mbooloo yi lu may loolu nguur gi dina yëkkati yat wi mi ngi ci yéenikaay bi di 24 heures yéenikaay bi di Le Soleil sunu jantub réew na dispositif bi gën nañ kaa teengal jëm ci wàllu ko dem ak dikk bi place yan daan taxaw wàññi nañ ko ci Dakar dem dikk ak tata moo tax nguur gi yokk dose bi ko gaay ma jëmbal jaañi waxee ci yéenekaay bi di Le Quotidien ne marché luuma yi yenn kon ndaje yi yooyu yëpp dañu ko interdire aye ko moo tax sucré salé xoromu loolu na jamono yi yàq gi daan am ci xew yi dina dakk jeex tàkk moo tax ñi di célibataire yi amagul soxna mun nañ profitoo takk nag ndaxte jamono yi nag seen poste du fëqate la ñuy génnee du bari nag ndaxte benn ndaje amatul naam ñi daan tàllal loxo te xew yooyu di leen dundal ñoom ñoom mbir yi dina jafe ci ñoom ndaxte battre gi moom day dakk jeex tàkk ndaje yooyu la nag ngir aye ko yéenekaay bi di source aané ne Sénégal nguur gi wàccee na armée bi ñi di commando yi ngir ñu mën a tiital askan napp leen ba kenn du lëmbee biir paane loolu buñ ko defee du lenn lu dul yokk renfort ak ak ñi di police ak a moo tax liggéey boobule am na ñun ci tegagum loxo teg loxo ci vaccin di ñàkk yi xeexee coronavirus la nguurug Sénégal namm le quotidien ne Sénégal vaccin bi ñu commandé ñu koy xaar ci table président de la république àllarba incha allah yéenekaay bi i yéene jaay lii di ñàkk coronavirus bi sénégalais yi mu ne fekk àllarba vaccin yi njëkk yi dina yegsi mu ne duñ yamale rek seen bëgg-bëgg ci initiative COVAX ñaksee yi nag bu yegsee ñu yëngu ci wàllu wér gu di personnel de santé yi ak màgget yi ñoom lay njëkk a ñàkk ñàkk yooyu la nag Sénégal mel na da ciy mat di ëf ndaxte ginnaaw ba mu ak yenn réew ci initiative bu COVAX Sénégal dem na dugg ci yeneen vaccin yoo xam ne ay mbiri boppam la moo tax Abdoulaye Diouf Sarr ne vaccin bi gën di ñàkk yi xam ne ñàkk goog ñi ñàkk askan seen njariñ la amul benn ngaañ ngañ di gagné Guédiawaye football club bëgg moo tax ñu jëli kii di El Hadj moom mi jël ñaari ballon d'or africain bokkoon ci football kat yi gënoon a xereñ ci atum 2002 yéen kaay bi dee sat ne jamonoy mooy directeur sportif bu Guédiawaye football club bii di Galatasaray Mbaye Diagne l'international mi ngi koy toj mi ngi taal di taal Mbaye Diagne ne ñi may xeeb danoo xamul rek ndaxte kii di Falcao naam dugalkat la waaye la ma dugalugum ca Galatasaray dugalagu ko mu ne yéeneem ca Turquie du lenn lu dul jël championnat ba ñaareelu yoon te demaat feneen Mbaye nag ne moom du Messi du Ronaldo waaye nag dugalkat la te ñëpp nan ko ko nangul moom Mbaye l'international international la ñuy jeexalee ci réewum France ak doomu Sénégal bi di Diary Sow l'observateur ne mooy ki gënoon a xarañ ci concours général ci atum 2018 jàpp 2019 ca prépa ca lycée Louis le Grand ba nekkee ca Paris ca lay jàngee Diary Sow ay fan a ngi moom gisuñu ko mu réer réer gu jaaxal ñëpp boobaak léegi ñu ngi koy woo ci mënuñu ko jot moom xale boobu le Serigne Mbaye Thiam mi nekkoon appareil am ne ñu ngi def lépp ngir mën a a moo tax amal na ca Paris ñoom ñëpp laaj bi ñuy laaj mooy jaari fan la jaar. Euh, foofu la ñuy yëkkatee jotaay xibaar bi di leen euh, jaajëfal ci teewlu beeg topp bi ci la voix des sans voix baatu askan bi euh, kii di Saaxa Diagne ak Modou Fall ñoo fare woon ci wàllu régie bi réalisation ñu di àndoon ceeg Pierre Edouard Faye mooy nekk sax ci ñaareelu pàcc bi di magasin bi jàngeen jëf jàmm ak càmm ñu yeen na leen ajjuma jàmm ak salaam. thank you